soo daan lu ngeen gëm bay yàlla mottali lépp yal na yàlla mottali lépp di ñaanal xalifa bi yal na fi yàlla yàggal te dolli wéram ñaanal njabootam gi yëpp sunu baay Mouhamadou Mokhtar mu Seydina Ma Njoon sunu baay Mouhamadul Basir sunu baay Mouhamadul Amin sunu baay maam Liba sunu baay imaam Maxtaar sunu baay maam Alsaan ahlu bayti bi yëpp sunuy mag ñoom Seydina laay mu Serigne Ablaye Seydi cow ñoom Serigne Jal ak sang yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax sunu egsee fii ci ndigalu xalifa bi dëgg yàlla ñoom taxaw nañ ci taxaw yu am solo waaye di sant jullit ñëpp waaye di sant Cambérène gi nga xamante ni yàlla dogal na mbir mi fi xewe di sante tamit mboolem layen yëpp ak mboolem julit ñëpp waye di sante bu baax ñi nga xamanteni ñoy diaspora bi ci seen taxaway bi nga xam am nañ ka ci lu melni daire Cheikh Ousseynou lay bi Maroc nga xamanteni jëf nañ jëf bu am solo ci xabru bi waye tamit di sante ben jam yalla bu nek ci amerique di Mbay samba momit yonene lu am solo li tax mo ubbee non rek bëgg rek ñëpp fu nu mën a nekk ci àddina bi waxoon nan ko ci le premier septembre ba ñuy def masata bi ne wallaay laaye ni lu nu bëgg mën nan ko def lu nu bëgg mën nan ko def ndax ñun yoronu wàlliyu yorunu yooyu kii tax àdduna di yëngu tey jii nii di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun loolu la nu gëm tey maslaa wun ko caaxaane wunu ko xaritoowun ko ak kenn bàyyi laay mooy muhammadu rasulullahi kii waral gàmm mu ngi tëdd fii yoof di saydina limaam kon nag ku yàlla baaxe nga gëm ki nga xamante ni mooy xayri xalqilaahi wallaay war ngaa mën a góorgóorlu nag taxaw taxawaay yu dëgër comme ni ko bàyyi ak maam yi daan amee woon ba ñëpp xamoon seen taxawaay kon nag ñu ngi soññ ñëpp rek xam ne waxoon naa ko ñun suñu booloowee rek lu nu bëgg mën nañ ko def sunu booloowee bokk kàddu am kilifa te yéenante jàmm mën nañu def lu nu bëgg a def kon ñun ci loolu ñuy soññaate di soññaat ñëpp ne gis nga diine dañ koy organiser suñu songee leen na nañ ci ñëpp a jàpp loolu su paree ñu songaat leneen ndax mbokk yëpp noonu la ñuy def loolu ñu ngi ci oo ñëpp ñu ngi oo ñëpp ne ñu xam ne fii la ne na laayeen yëpp fu nu mën a ne ci àdduna bi nañ ñëw indi seen participation euh, pour lii man fee bañ a yàgg ndax ku xool liggéey bi xam ne ci kàntanu yàlla du du lu yàgg waaw ndax budget bi bariwul yenn bëri yi kon nag pour man su diaspora bi taxawee comme ni nu war a taxawee dëkki laa taxaw yaakaar naa ni ci kàntanu yàlla juróomi weer sax waruñu ko fee am. kon nag ñu ngi soññe ñëpp li may li may wax daal di ko répété mooy anarchie baaxul ci dara. baaxul ci dara dafa jot li may wax te ñi ma ci euh, mën a waxal ci samay kilifa waxtaan ak ñoom mooy nanu fexe bokk kàddu nanu fexe bokk jubluwaay nanu fexe organiser. projet yi organiser programme yi ñi nekk fee ñi nekk fee yëpp nan ko ënk tënk def étape par étape comme ni ñu nekkee fii tàmbali ka ñëpp àndandoo ci mu pare ñu songaat leneen comme ni ko mbokk yëpp di defee loolu daal maa ngi ci ñëpp di wax daal wax dëgg yàlla moo xam Italie la moo xam Espagne la moo xam ñëpp. sunu mag jafa ne di Serif ciow di Espagne ah wax deug yalla ñom day am nañ taxawaayu am solo ci diine ji ndax xamna ci dara ci appel bi lañuy deflante ak diine ji xam nañ ko kon nak ñom ñu ngi leen di xaar. fii ci khabru maam mantu ndax moy priorité ndax moy taw sayidina al imam amul lenn lu ma ci jangal benn layen mhm. fi ki teud fi mom la bay lay jikko gis ci njabot muy maam mantu lay kon nak li nak ndogalu sunu borom la li tax yalla bàyyi ba 2019 mhm. lolou kumpa sunu borom la. waaye daal dañ ke sant yàlla ci xilaafab sëñ ablaay ñu koy defaraat. kon nag loolu na ci ñëpp bàyyi xel mhm. moo xam ña nekk Italie ña nekk Paris France fu nu mën a ne mhm. na daayira yu organiser wu lanu dajale ñu indi ko ñu defar lii sunu paree xoolaat leneen la ñuy song comme ni ko diine ji tërale ñu ànd ci lépp mais ñii taxaw fee ñii taxaw fale sunu boolee sunu doole rek yaakaar naa ni lépp dina baax su ko defee fi may tëje daal maa ngi gën a feddaliwaat sunu sant ci Cambérène mhm. wax dëgg yàlla fu nu ne dinaa ko wax ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay balaa deux heures ñu tegal la ci taabal ji sept million mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu man mii nga xamante ni man la kilifa gi boole woon ak njaboot gi ñu liggéey na sant nañu Cambérène. Mm-hmm. sant nañu ëttëya mm-hmm. sant nañu maas ya sant nañu kilifa ya. kon nag loolu daal ñu ngi ciy soññi dëkki laayeen na nañu xam ni. Cambérène rek moomu ko képp ku gëm Seydina Limaamu sa alal sa ñaq sa yéene sa xalaat war na dugg ci sànc bu rëy bii kon nag ñu ngi ci soññaat ñëpp di sant sunu ay kilifa. waaye di ñaanal ki nga xamante ni ah mooma boole liggéey bi muy général bi di Bandjine Thiaw wax dëgg yàlla ah ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla gën a oyofal yaramam te taxaw ko te jàppale ko ba mission yi muy dawal góor gi yàlla na ko ci yàlla defal ndam waaye di ñaanal sëñ Cheikh Mbacke laay li tax ma kay ñaanal na ñu bëri xamuñu ko nag ndax ba mu nekkee bitim réew jokkoo nanu la mu man ci ci soññ njaboot ga mu ngi koy def pour ñëpp a ñëw indi seen jàppale ci liggéey bi kon ku mel noonu tamit dañ koy sant sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp waaye daal ubbee liggéey bi ubbi nañ ko tey ci ndigalu kilifa yi nag du ñun ñoo toog xalaat ci ndigalu kilifa yi ba na mag ña daan def tamit def nañu ko ci li ñu war a wax wax nañu ko li nu war a def def nañu ko ñëw na moom chef de village ànd ak imam bi ñu ñëw gunge leen def nañu lépp incha allah kon na ñëpp a xam ne liggéey bi tàmbali na ku am looy indi moo xam ciment la wala fer wala alal am na ñu fii ne yor fi seen bureau te it incha allah man day li ma yéene mooy fii lu fi waay def day leer. Mhm. lu fi waay def day leer. ku fi indi teraanga. ñëpp dinañ xam ni. teg ko ci loxo yu óor te def def nañ ko fi ñu war a def man mii di wax ak yéen nag na ñëpp xam ne duma ci lenn duma ci dara fekkewuma fu nuy réunion fekkewuma fu muy nanga man daal ab surga bu nu boole ak ñi may liggéey ak ñoom mm-hmm. xaw ma fu xaalis di ñaaw teyewuma xaalis dencuma xaalis réñewu ma xaalis jëndiwu ma defu ma dara mhm. surgalaa ni ma koy waxee mhm. incha allah puisque xaalisu mbooloo mhm. soo bëggee nit ñi am confiance da nga koy weer ubbi ka leeral ka ñëpp a gis ka ndax foofu la laayeen toll lu nu fi nëbba moo fi amul na ñëpp dalal seen xel ne incha allahu man day ñi ma xam ñëpp xam na ni lu ma waay jox fu ma amee occasion ci mbooloo fa laa koy defee barki démba ci anniversaire Serigne Ablaye dafa am groupe euh, waa Kër Baye Laay dajale seen alal oo ma téléphone ne ma Serigne bi dañ bëgg indi suñu participation ci xabru Mame Mantou fun lay fekk man leen maa ngi jëm ci programme Khoudia Mbaye bi ci euh, anniversaire Serigne Ablaye fekk leen ma ci biir tante ba ca tante ba lan ma fekk ma ñu ñëw jox ma lan ma jox ma wax ko ca digg nit ña jël enveloppe ba jox ko li ba sekk ne demal nga verser ko soo paree nga jël reçu bi jox leen ko te lu mus a dugg ci euh, ci ci alal jëm ci fii noonu lañ koy defee. Mm-hmm. ñi koy yor tamit ci loolu lan leen teg. Mm-hmm. lépp lu ñuy def ci suñuy activité sax. duñ ko jël ci kees gi ñun ku nekk Maguette day làmb Aziz làmb ma làmb ku nekk làmb ñu dajaloo dem su dee lu ñu war a dem ci rajo yi wala ci ci jënd ay lu mu manti ci luy publicité wala ñu nangam sunuy poos dañ koy jëlee ba lii nuy jël ci internet bi yëpp ci sunuy poos lay jógee kon pour wax rek ne loolu daal la ñu bëgg transparence dafa am solo fii àddina toll kon nag ñu ngi ñaan yàlla mhm. euh, oote bi sori na ci ñun lool wallaay ndeysaan ndax dañu ne ci réew te yor li gën ndax bàyyi lu yàlla bind moo ci gën kon nag war na noo mën a am taxawaay bu dëgër boo xamante ni mhm. ah ku nu xool dina nu naw taxawaay rek la laaj mhm. ak boole xol yi ak bëggante ak soppante ak wóolonte te waxantee lu baax li ma ko waxee woon ci premier septembre képp koo xamante ni am nga loola jaaxal wala am nga lu lënt ci yow aajawul ngay jokkoo kenn ci internet am ngeen sunu ay numéro ñëw leen wax ak ñun ci njekk man day ku ma corriger su dee aw na yoon ma ànd ak yow ndax ñun loola nu diine jàngal ndax alkamaalu lillahi waaye daal fii diine ji toll joxante loxo booloo bokk ndey bokk baay. Mhm. ñun loolu moo nuy war a dimbali fii laayeen toll. te sunuy kilifa ci loolu la ñu ne yàlla leen si yàlla jàppale. ñu ni taalibe yàlla leen si yàlla jàppale. kon nag ñu ngi yemale foofu di ñaanal xalifa bi moom Serigne Ablaye. Mhm. yàlla na fekke lépp. yàlla na fekke lépp yàlla na fekke lépp. Mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala